asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey damaa ñëw indil leen benn secret boo xam ne day dox ci wàllu soxla boo xam ne dafa jàmp walla nga am soxla boo xam ne lu ne def nga ko fajuwut lii dafa nekk mbir moo xam ne bu leen ko xeeb méttiwut képp kenn ku nekk mën na ko defal boppam ndaxte na joo xam ne lañ toll soxla yi bari na jafe-jafe yi bari na stress bi bari na. waaye lépp nañ ko jël delloo ko yàlla suñu borom kon yal na yàlla faj aaju yëpp yal na yàlla dimbale ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe moo xam feebar moo xam jafe-jafe sëy moo xam jafe-jafe liggéey moo xam jafe-jafe wër moo xam jafe-jafe bu mënti doon yal na ko yàlla saafara kon tey secret boobu laa leen jox muy secret boo xam ne man mii di wax ak yéen dama koy faral di def dama ko defal tam ay nit ñi nga xam ne parfois dañuy nekk si ay situation yu xaw a doy waar ñu lay sakku nga leen di ñaanal di leen di téyal parfois itam dañ leen koy faral di defar genre mbir yi moo tax ñu koy ñëw di ko séddoo ak yéen ku ko mën na ko def soxla boo mënti am lu mënti doon si àddina moo xam sa sëy dafa naqadi moo xam da nga bëgg sëy nit moo xam da ngaa ne si liggéey bëgg mu dox moo xam da am place bëgg mu dox moo xam da nga feebar moo xam daal loo mënti loo mënti am si jafe-jafe rek dafa lii ma leen di bëgg wax lu yomb la amul bind amul dara dégg nga muy mbir moo xam ne ñëpp si bokk yam bisimilah rahmaan rahim ñëpp xam ne mooy lépp bisimillahi rahmaani rahim da ngay téye sa kurus ngay wér de bisimillahi rahmaani rahim bisimillahi rahmaani rahim bisimillahi rahmaani rahim 787 fois saa boo xëyee da nga koy def saa boo xëyee defal bisimillahi rahmaani rahim bisimillahi rahmaani rahim 787 nga ñaan sa bépp bëgg-bëgg sa bépp soxla moo xam soxla feebar la moo xam soxla sëy la moo xam soxla am xaalis la moo xam soxla kaaraange la moo xam soxla bu mënti doon lépp loo bëgg rek ñaan ko si nga def ko weer incha allah rabbi di ngeen gis résultat bi yàlla dañ la si wuyu te dañ leen defal tawféex lii nag dañ koy boole ay jawaratu kamal eh, salaatul fatiha salaatul ummi salaatul naari mais loolu dafa xaw a bari moo tax dañ leen di jox li nga xam ne yéen di ngeen ko mën dana oyof si ñëpp kon yal yàlla def si barke ñu ngi jëm yem fii di leen jox di daje suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah